salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu na ngi nuyu mbokk den ziar ñaan yàlla suñu borom mu boo leen defal tawfiq te defal leen ko xam naa pour rek conclure ci li ñu tàmbale ci sujet bi ma jàpp ne am na mbir yoo xam ne foog mu ñu taxaw ci jor a bàyyi xel wax ñu daal nataal bi nga xam dafa nekk loo xam ne prétexte la ci ñun ñu mën a taxaw ci point yooyu bi ci jiitu mooy dafa am mbokk yoo xam ne ñoom dañoo xalaat ne laal mbokk mi su fekkee ne dafa féetarlu li ko waral moom mooy nasiha gi ko mbokk yi nasiha ci kaw te nasiha gi doon ci ci suuf wala anam ki ko yenn mbokk yi nasiha loolooy waral yu mel nii mbokk yooyu noonu di wax noonu man ma jàpp ne sama conviction mooy ne bokk na ci mbokk yi war mujjee wax ci lu aju ci daawa ak masaxatu daawa ndax loolu dafay feeñal seenu ñàkk ñor seen ak ñàkk xam la mooy xekma seen ak ñàkk di bañ di xalaat di dem ba ci biir mbir yi waaye di yem rek ci loo xam dafa superficiel yenn saa nag ñen ñoom seen yéene mën naa rafet ndax xatal lañ bëgg dafa jàpp ne lii nii mafsada la wala bokk nañu am ñeewantal ci mbokk yi rawat na mbokk mi ba ne suñ ko waxee ak moom nen rek mën naa dem lu tax mbokk yooyu dama jàkk ñoo war a bokk ñu mujjee wax حقيقةً في أتوت مدرسينك. وين كوخم ان تنتال خم من دخول ني جمالجي. أقلم بقى فينال رك دي نكاد مو جوجنال. تدر <laughs> لي ندفني مم لي سكين مصلحة إنسان جاي كسرني خال. مم دكوا أرانج. اسمه لفهم دوغو فينال اسمه لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم لفهم waaye lam-lam ko bëgg daa bëgg mu feeñ jëleen nga contextualiser nga xool Sénégal dañoo nekk benn régime bu bees régime boo xam ne bu ñëw na bëgg a mbir yëpp ci benn li mu bëgg a changer bokk na ci doxalin ak nan la ñu war a li aju ci diina ji bala sax mu daal di proposer wala dégg ay wax yoo xam ne ministère boo xam ne ci culte la mooy yor li wàllu ci wàllu culte ñu ngi jaamoo yàlla suñu borom benn ministère culturel bu mu bëgg du nga fon léegi nag loolu foog mu am foog mu c'est-à-dire su fekkee loolu am na dañuy nekk ci casting boo xam ne ci la ñuy nekk pour xool ban profil te profil bi xam ne moom mooy moom mooy ci ci wàllu réew da nga profil soo bëggee jël ministre woon ne culture ministre woon day dem ci wàllu culte à chaque ne doo indi clivage profil boo xam ne day jéem a boole ñëpp profil boo xam ne day ñëpp li nga nekk baax na daal mm, nii réewu lay gi di doxee loolu <laughs> la mën a doxee ñëpp la ñuy nangul xataa buddhiste sax su nekkoon lañ koy nangul li mu nekk boor ñëpp sàmm bu ne am kon su fekkee ne ñoo bëgg a def ménage culturel voilà te mbokk mi sax moom nit ñi dañ koo doon askanale ndax fi ñu ko xamee mu neex naqare moom fi ñu ko xamee mooy ci waa ahlu sunna moom la ko nit ñi doon xoole moom la ñu gisee association yi ci la nekkoon euh, mu jege woon loolu daawa sunna leneen xamee kon léegi moom <laughs> su fekkee ne am na lu lu lu mu bëgg ci foofu faaw mu daal di wone benn mu démarqué wu mu démarqué wu ci <laughs> ci étiquette boobu étiquette salafi <laughs> yàgg na fi année atta ngi fi mosoo gis mu génn génn nii mel nii li muy wax de yëpp yàgg na fi mosut am benn posture bu taxawin mais tey la moo tax posture bu jaral ko c'est-à-dire muy muy muy muy publi teg publication yi mu xamoon nañ demee foofu dina nañ ko xam nit ñi dinañ ko gis waaye am lu mu am na lu mu bëgg am na mu bëgg a feeñal te pour démarquer wu nag. bu bu ko démarqué wu complet ba boo xam ne léegi day nekk comme day far feneen mais kon la muy yoonam bi bi baax mooy fexe ba ci waa na seen yoon mu am ñu mu ca diaboliser daal di defe ñooñu ngay problème bi <laughs> parce que am na ñoo xam leen a su ko defee tamit kon la mu bëggoon sax mooy nekk ci ci juste milieu bi dafay xaw a day xaw a yàqu mais da ngay jël comme moom ne dafa jàpp dañuy initier ñi nga ñu fenn comme ko jàppe waaw ñoo xam ne kenn tagg seen maam kon muy taggee maam ñoom Abdou Sire ñu leen kon léegi moom ñooñu lay jël daal di leen di joggati ci am lu mu bëgg li may wax ni nag nit woon xam ne vann la naam vann la waaye nag vann nekkul lépp xaraam <laughs> vann bi yàlla tere mooy zann yu bari mooy kon am na zann yoo xam ne terewuñu ko zann yi ñu terewut mooy ba nga xam ne amay mbir yu la koy permettre ay xara ñoo xam mën na permettre nga zann ko te lay wax ci penc bi fekkee demewut noonu ka ngay waxal mën nañoo ne loo demewut noonu c'est-à-dire dina ngay gis ne am na benn am na ay pion yu muy taxawal mooy lii am na politique gu ci rax maanaam lu muy lu muy lu mu lu mu bëgg a dëgëral lu mu bëgg a wone ci loo xam mën na ko yóbbu ñu daal di am luñ ko luñ ko luñ ko tabb moom. boo te lii daf ko arrangé wax ji muy ñiy wax ci moom ni daf ko arrangé <laughs> mais problème bi laaj nit mën na wax ne mais tax ngay wax ci moom su fekkee da nga xam ne ko arrangé foofu nag mooy ñaareel mbir mi sa à dire ñun fekkoon ne problème bi Ismaïla Ndiaye kese moo ñu tax a jóg duñ ko mës a wax ci kaw. kon dinañ dem jaar ci ay ñoo xam ne jàpp nañ ne dinañ ko dina leen déggal ñu la dem wax ak moom kon ba mel mbokk yu ne mbir bi sax ne ko demal wax ak moom wala nga mbokk naa wax ak kuy wax ak nga waaye man du wax ak moom mais loolu mooy jaaribu li li aju ci maslaha Ismaila Ndiaye mais tam beneen maslaha boo xam ne mooy aham la mooy koo xam ne day woote ci sunna ñu xamee ko ci loolu bu fees ya ñu xëy ko mu gis ci màggal ñu foto ko nga daan koy bàyyi noonu di ko di ko di nga na saw ci suuf <laughs> loolu yàqute la kon ñun xam nañu on est bien conscient ak Ismaël Ndiaye lii daf ko arrangé kon côté politique daf koy daf koy daf koy am na lu mu koy lu mu koy lu mu koy indil c'est-à-dire léegi ñaa ñi nga a commencé naan waaye ñenn ci ñi wax seen ak seen sunna ñu naan waaye ji sunnit la di ngeen a tar def tànk dafa njuum la ñoom dafa juum ba léegi bu rek Tijaan rek ñu naan macha allah kii ko am xam-xam la kii ku ku ku ku ku ku <laughs> kii ku kii ku kii ku baax la kii ku yaru la kii ku bëgg jubal jubali jullit la kon suba suñ xëyee ne Ismaël Ndiaye mooy ministre bi nga xam moo yor wàllu cul Sénégal kon ñëpp dañ naan kii moom mooy mooy profil bi baax <laughs> waaw day kenn taxaw na ah léegi xool jël ngeen koo xam ne moom mooy kii dàq saaga suñu mag ñi Sénégal comme ni ko ñeneen ñi waxee kii mooy taalibe kii bind taqrir asxaas gën jéego loolu gars yi léegi da ciy ci moom na suñ xëyoon rek démarqué wul donte mën a jëm leneen la ñu xëy daal di koy fal <laughs> wala ñu koy far sax mën leen koo bañ a c'est-à-dire mën nañ koo bañ a fal sax ndax gis ne moom loolu mooy ittege moom kolew ci moom wala ñoom ñu xam leen lañ ci ma daal di koy fal mais su defee loolu kon gars yi dañuy taxaw déedéet ñu dañoo jël ab salaf yi teg ko ci teg ko ci kaw bëgg ko teg suñ kaw kon loolu effacé na ko kon moom lii ñuy def ñoom daf koo arrangé personnellement ak li nga xam ne li muy teg mais ñun nag li dafa ñu arrangé ndax ñun li ñu yitteel mooy nekkul calcul politique yooyu li ñu yitteel mooy ba kenn du sóob al manhaj salaf yi kenn du ko njaxas salafi bi xamne mo ah luñu nekkul toléré ci mané salafi nekkul luñu maslaha nekkul am nañ koy négocier ci jël lenn ci diine duko bàyyi ngeen lenen fofu na talbi di intervenir moy danger gi nek ci mbir yu melni bayiko mu jàll te ci ngay comprendre tax borom xamné gis na du li ñi insister ci wa al ikhwan muslimun insister ñi yi nga xam ne dañuy wane diine mais bëgg a jaar wala bokk seen yoon soppi ñu jaarale ko ci politique. ñu insisté ñoom ci lu bare bare bare wóoliis ñi nga dañoo fësal na ñoom nekkuñ ci diine mooy ñi nga xam ne ñu tuddee la laïc la laïc donte ab jullit tuddee ko nga xam ne ñoom seen seen seen poli seen seen seen seen seen seen idéologie politique dañuy leeral ne duñ ko duñ ko askanal ci diine. fi ngay gisee différence parce que ki nga xam ne moo ñëw daal di woote ne day politique ñëw daal di askanal ko ci diine. la chaque la mu nekk nangu ko muy démocratie laïcité l'islam da koo bañ waaye moom mbirum dafa leer askanoo ko ci diine kon du ndax kenn ko bëgg diine waaye kii ñëw nag am même jubluwaay ko ñooñu ba pare ñëw daal di koy bëgg solal mbubbu diine loolu mooy problème bi cest à bi ci xaalam rek jëm mu dem fa rek màggal gi su waxul woon am na mbubbu diine bu mu bëgg a solal li nga xam ne mooy doxalinu politicien c'est-à-dire politicien soo nekkee homme politique xataa su su su su laay sa foog nga dem foog nga ñëw toog ak ñoom mais nag ixwaani bi wala ki nga xam ne dafa am taasir ci ñoom day jël la nga xam ne moom la lay gi nekkee nekk lu su ko déggee day daw. maanaam la jala bi xalaat kay mooy ndax kii anam gi mu ci duggee yëbbu ko ci kii farol déet bi dafay ñëw daal di ko koy ci benn mbubbu daal di koy solal mbubb diine ba mu ñeme ko. <laughs> kon dafay gisee kon homme politique yi gis nga slogan bi nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ génne boo xam ne am loo xam ne politique la <laughs> slogan boo gis nga moom da koo jël daal koy approprié am yokkaat solo ko mbubu diine rek jub jubal jubbanti <laughs> juboole bu ko teg ci usul ahlu sunnati wal jamaa <laughs> waaw moo yéem gën a yéeme photo bi nii ñëw daan intervenir ci loolu mu ñëw photo woog ambassade saoudienne c'est-à-dire léegi daal jël mbir bi nga ne daa ci conscience collectif sénégalais mooy Arabie Saoudite préférence la rawatina nag salaf yi ñoom moom lañu ñoom la ñu topp kon su fekkee waa saoudi ñoom ñëw nañ ci màggal gi ci jàpp naa saoudi yàgg nañoo ñëw ci màggal gi seen ambassade daal lii politique la ay réew dëkk ak dëkk la réew ak réew la amul dara diine mu nekk politique daganulu ko <laughs> eh, sa Arabie mais Ismaël Ndiaye ñëw photo moom ñu yi koy génn am na lu mu bëgg mbubu diina mu bëgg solal mbir mi c'est-à-dire ñi nga xam ne ñooy wax salafiyun Sénégal waaw seen conséquence dafa jàpp ne ñoom ñi ñoo jàpp ne ñun fa la mbir yi te ñoo ñoom ñoo bokk ko jëlee moo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam état bu muntu yoon doon buy doxal na Saudi doxale ñu ne lay lii ak salafi waaye da min dañ ci nekk mañ man cee nekk rek tayib waaye rek te tekkiwul ne état boobu la ñuy def lépp ci diine la tegu wala ñuy def lépp lo amul xata wala seen doxalin yëpp lu ñu doxalin rek ci lañuy référence bo ne li wéet na wala wërut mais ben gars su ko taxaw ambassade ki nga ambassade bi dafa taw ak mom tas ko ci réseaux sociaux amna lo loo ñu koy jëmmal mooy lima def ni wa Saudi sax ñu koy def cest dire na d'un côté bon ni saoudien bi def bon xanaa politique la état la fa représenter moom représenté foofu état xataa su fa représenté état sax tayib du du du du du mën a tax mu daganal jëf jë waaye su fa représenté état moom ñu xam ne état moo ko fa représenté soo baa sax ñun mu ci nekk di wax ndax dañ xam ne kon kii la mu nekk nekk du ko askane ci diini waaye léegi moom day jël ñaari mbir daal di koy boole li nga xam ne mooy mën jam yoonam daal di koy solal mbubbu diine mu nekk la mooy lu normal. Ismaël Ndiaye su fekkoon daal nekk ministre boo xam ne ministre ci ministère yi spécial politique gi muy politique ànd ak ab parti génn di wax kenn di ko di ko di ko associé ay jëfam ak waxam ci benn daa boo xam ne day askan moom salafiya ah. soo waa génne def yi nii <laughs> ku koy nas ngay nas faj suuf fekk da nga jàpp ne ko lii nii bàyyi ko li baaxut li lay lor bu nga xam moom da nga xam suuf ndaxte jëmm jëmm jëmm génn rek loolu nekkut lu muy amul problème mu indi daaw Saleh ba su kenn du associer mom lim def ak li nga xam mooy manhaj bu leer l'islam bu leer kon ñu photo won ko rek du tax ñuy wax mais kon si ngay xamé nak so xamé li moy mbubb gi muy solal mbubbu diine gi muy solal mbir mi ci ngay fekkene sam xel noxut su fekkene sam sa xol far far lo nekku ci ci ngay xamne kon importance ak obligation bi nek ci mbokki taxaw leral ne ki limi def ni du diine leral ne ki limi def ni bokku ak liñu xam ci salafi ki limi def ni representer wul manhaj ahlu sunnat wal jamaa te loolu chaque ñëpp ñu ko def bu ñu ko def Sénégal ni ñuy doxé ak ñafa nek amna yenn taxa yenn posture am nga am yenn kilifte go sok amé Sénégal da taxaw daal di dénoncé lu mel nii loolu la chaque ne soko ko seetantalee ci al maslaha wal mafsada yàq ma mooy ëpp limi defal wala boog mën na ko ëpp ci lu bëree bëri loolu lu tax nag ñeneen daal di noppi ñu bàyyi mbir mi noonu ko ku askan wi ci sunna rek soo neexee nga dem màggal soo neexee dem <laughs> jëm ak ñun fi ñu jëm ak mooy diine benn la <laughs> ajib loolu suñ ko suñ ko toxee noppi ci xam <laughs> naa yàlla duma yi muy duma du ko duma ñeneen ñin doon dal ñun ñoo leen yées lii nii dafa làmboog politique te comprendre nañu bu baax Ismaïla Ndiaye lii lii nii muy def nii au fond man dama gëm ne au fond de lui li def nii di ko wax di ko dal nii nekkul lu ko naqari au contraire da koy da mu mu daal defar image am mais image bi nekkul ci kanam mburam da koy defar image bi nekkul ci da koy defar par rapport rek sud na image bi mu bëgg mu am waaye image da koy defar par rapport ak àdduna. par rapport ak politique ci jamono noo tàbbi jamono fitna c'est-à-dire ñoom am mbir yu bëri wax daaw ci bàyyi xel mais la mu bindoon mooy ne dañoo nekk période obscure mooy période obscure bi nekk mooy lañ yonent bi sala waxoon ni day xëy nekk jullit gont nekk yéefar jaay diineem ci poñetu àdduna جيخال جيمي سعودي دادي آه، عربي سعودي دادي زيرو ما قلت حتى شكرنا هنا ما قال لنكاي ديفي سعطوبة ناس قال ديفي ليس عربي سعودي لو المنتدخ المنتدخ در ما قال دقن ولا دم دفتي او دقو دقر نكرو دقن جريف